tàppet nga rek xam nga takk suuf lay wax ndax jaadoo na nga nëbb ko sa soxna loo ko ci nëbb danga xool sa bët ba gis ko moom mu neex la nga takk ko te ñeent la la alquran wax amaguloo ñeent xoolaatal ba gis keneen takk lu ci yoonam sa soxna yoonam nekku ci danga nga koy yor rek keneen ki nga takk yoonam nekku ci góor mën naa takk jabar baayam du yëg kenn du yëg waaye nag du du orma il faut nga sagal sa baay wax ko ki nga bëgg walla nga sagal ko wax ko ni ko damaa bëgg mu tànnal la ku baax léegi la xale yi takkal seen bopp jabar man saalum saalum laa ba ba léegi soo bëggee jabar sa soo bëggee jabar sa baay ak sa najaay ak sa bàjjan ñoo koy waxtaane ñu ne nañ ko may doomi diw ak diw ndax kooku sëy këlle ndaw sa yëgul de bàjjan dem wala najaay wax ak ñoom ne ko sa doom jii di xadijatu ndaw dañ koy bëgg a may moodu ndaw mu ne lu ci sama yoon yéene ko yilif yilif ma moodu yoonam nekku ci dañuy xëy may la ndaw si sa papa la bul génn nga defar sa néegu sàkkeen ñu jànkal la ko ba mu jekk ñooy la bul génn tey pour xale bi ñëw sëy si keroog bi mu sëy ngay doog a gis ndaw si keroog la lay doog a gis soxloo ko rafet moom soxlawul ko rafet kenn ku ne kilifa ngay sëyal sa bàyyi la saf moom ngay sëyal bàyyi ma ko saf moom lay sëyal waaye kuy def takk suuf amoo kilifa amuloo kilifa ci tàppet bu ngand nga doomi njaaluy du donn nag na leer ku la ko wax waxul dëgg waaw na leer de yooyu ngeen teel koo bàyyi xel dellu leen ci sariya takk suuf daganul mooy nikaaxu sirri sëyu contrat daganul mooy nikaaxul muta kon takku suuf mutlaqan la mut la xam nga mooy lan man ak yow rek ñu wéet ma may la sama doom bu kenn yëg rek day am seede nag yow itam mooy tax mu wér bu seede amul du wér yi nga sama tànk bi muy metti ma ne ci tànt bi benn jigéen ñëw sukk ne papa Iran ñaanal ma dama sonn ma ne ko loo bëgg mu ne ma nga ñaanal ma wér ma ne ko yow nga fekk ma feebar xanaa gisoo sama tànk bi ki teg feebara ma ko teg xanaa bala ma laa ñaanal mu teggil la ko ma ñaan ko mu teggil ma ko man manuma sama bos dara mu ne ma wax nga dëgg moo na de ma ne ko waaw waaw yëpp bëgg dundu la rek bëgg dundu rek bëgg a dund ci nit ñi rek man de nee naa leen xaw ma kañ laa yeewu loon waaye jamono yii maa ngi ne jar ni ko dëkk njar laaj ma lu tax yow may sa may sa taalibe seet si la du la gis su ma la waree jox lo nga jël su ma la bëggee jox loxo nga bañ may yaakaar la yow mal xiyaam nga wallu ma nga yaakaar masque mu wallu la ci feebar masque morso nga yaakaar ci man ma yaakaar la su ma nitee war na maa xalaat nangoo maa jox loxo ci feebar bu la dalul bu ma gaana woon sax jox ma loxo su ma gaana woon jox ma loxo ndax yow laa yaakaar ëllëg nga dëgër dëgëral sama yaakaar am déet su ma yoroon tuberculose óbbali la wanaasul mu dalal sama xel seen maam Maodo yoroon na taalibe bi bu yor feebar buy wàllaate mu dem médecin yi ne ko ber ko fële bu ko jegee ti day wàll ti day dee alaaji maalik ni duma ko ber ki yaakaar ma àllaaxira aw ma fa tus yaakaar rek laa am man mim yaakaar sama la gën a xam ne aw ma fa dara dara këru jàmbur lu ma ko digaate aljana yàllaa ko moom safara yàllaa ko moom man lu ci sama yoon man may ñaan yàlla dem aljana muy yaakaar ma feebar tax ma di ko bàyyi du ma ko ba Maodo koy seexal lekk Cheikh El Hadj koy sang Seydi Hadj Malick koy toppatoo keroog ba mu faatoo moo ko sang sang ko yóbbu ko ci bàmmeelam denc ko fa taxaw ca bàmmeel ba ne ko yàlla lii rek laa mën fii la jaam mën a yem ak moroom sang naa ko sang naa ko ñaanal naa ko mu ngi ci pax mi ni la yaakaare laa la yaakaare loolu muy dëgg ni mu la yaakaaree man Xaaji Malick noonu laa la yaakaare te lu la neex def yow nga yaakaar ni mu di la daw di la daw doo ko teg bët te loo ko jox mu jël ko xanaa feebar bi ta topp xaalis bi ah déedéet waxante leen dëgg rek feebar war naa mën a topp xaalis yeewu leen man nag gis nga man yàlla rek laa gëm diine rek waxuma ci tarixa kenn parce que tarixa am na borom sama yoon nekku ci diine rek laa ku moom diine nag noppiloo ma ku moom diine rek waaye ku ma ne maa moom diine ma ne da ngay fen maliki yow mi maliki yow mi diini yàlla ne na man dong maa ko moom ku la ne maa ko moom day fen diine moom yàlla ko moom ku yàlla nag ci diineem ji ngay bokk par force jaamu ko soo ko jaamu looloo ko neex boo ñëwee mu duma la loo ci man baatu seytaane mooy la dégg naa ñu naan diw seytaane la diw seytaane la kër yi sax dañ ko ci wax yow ni nga seytaane yow ni nga seytaane seytaane muy firi yàqkat alam ahad ilaykum ya bani aadama an laa taabudu cheytaan innahu lakum aduwwun mubin mu ngi mu ngi sortu yaasin doomu aadama maa wóol la daan teg yow wax ak yow lu wér ne leen jaamu leen ma moytu jaamu cheytaan yàqkat bi moytu leen ko te nag yàqkat boo gisul moo garaaw mais yàqkat boo gis garaawul innahu lakum aduwwun mubiinun Iran nga nele mooy seytaane mu nga nele ngeen di ko gis du wax ànd ak nit ñi mukk ci lu mu wax du baax lu yàq rek la yow innahu lakum aduwwun mubiin mu nga ne fang ngeen di ko gis yàqkat bu bon la nee naa leen moytu la man yàlla na ku la moytu ko moytu ko parce que doole ji ma ko jox moo bëri wa an naabuduuni haza siraatu mustaqim jaamu leen ma man yàlla mooy yoon wi leen di arrangé jaamu leen ma man yàlla mooy yoon wi leen di arrangé te kat ma tegal la ci lenn wala xat àddala minkum jibilan kasira yi nga fi nga koy gis noonu ñi mu sànk ak a bëri ndax defe nañ ne lu mu wax dëggale ti day fen alxuraan boo koy firi sax ñu ne di woo ko moom <laughs> alxuraan a garaaw wala xat àddala minkum jibilan kasiran sànk na mbooloo yu bëri ndax nee nañ boroom xam-xam la lu mu wax am na fu mu ko teg seytaane fépp xam-xam parce que bu amul xam-xam du mën a yàq yàq kat day xam la war a yàq alquran bawul dara moo tax guddi googu moom loo jàng ci naafile baax na zikaral lii ma la wax laa ilaha illallah muhammadun rasulullah soo amee ay sarax joxeel soo amee ay ndimbal joxeel soo mënee togg ñam jox nit ñi jox leen su ngeen mënee def waxtaan diine yéen ustaas yi yéen ko moom waxtaan leen bu leen kenn xañ dara man de feeg maa ngi dund diine sama bakken bii feeg mu ngi dund diine yàlla ji kenn mënu ci dara dara dara ku ci dugal sa baaram nag dara ja joo ko man Iran Ndaw mii ko ku ci dugal sa ci diine yàlla ji dara ja joo mën a am billaahi boo ci waxee baa nga def ci te déggoo ma wax dama koo déggagul su ma amee lu leer maa ngi sa kaw loo man defal loo xam defal xamoo manoo parce que yàlla nag du ñu dénk li mu ñu dénk jox ko yenent bi ñu di ko sàggane ay sàmba booy di ko yàq mënul nekk soo bëggul la nekk jullit yow yaa xam waaye boo dee doon jullit boo dee dañ la sang-sang la jullee la ñaana la buñ leen a yulub ca pax ma sul la fa ngeen ne fu ngeen jëm ñu ne la toogal ak li nga doon jëf da ne ci àdduna di yaree de ko rek di bang bang ci télé yi di funki ci télé yi loolu neex wax ci nit ñi ne ci Sénégal lu la neex def bàmmee ngoog jëf jàngoog yàngoog suul kon laylatul xadiri guddi gu am solo la soo amee saraxe saraxel jàngal alquran naafi leel ustaas yi nañu def ay waxtaan ci guddi googu ku jàng dara waxtaanal ak sa njaboot ngeen def seeni ñaan jéggulu seeni bàkkaar ba fajar jot fa la yëf yey yam xatta mat la al fajr bu fajaree bu nit ñi julee pare ci la malaaka yi naaw di delloo la suñuy ñëw ñëw jibri lay ànd kenn ku ne booy julli ñu ngi toog benn malaaka ngi sa wet salaamun hiya xatta mat la al fajr dara du la dal fii ba fajar ñoo la garanti ñu ñooy say garde corps garde corps bu xamul lay xew ëllëg lu muy garde corps yow sa corps xamoo lu ci euh, kañ lañ senegal amuloon garde corps buñ amoon na ba mu xamee loolu lu mu doon garde koor yi jàmbur yi yow amoo garde ko di wut di nekk garde kooru kenn wallaahu yaasimu ko mi na naasi koo koy garde koor moom mi la mën a musal kon laylatul xaddira nga kuñ ko tuddee lànkal am na borom ba pare guddik dogal la guddi jaamu yàlla la guddi saraxe la guddik bañ a nelaw la guddik euh, naafile la guddi yiw la jigéen ju am ngant nag bu mu dugg ci jàkk bu mu ziyaare benn sëriñ ci ci armeelam bu leen dugg ci jàkk yi ku ci am règle toog leen ci biti ku amul règle nag mën ngaa dugg waaye bu leen jege góor ñi bu leen góor ci jege dàndante leen jigéen ci gannaaw lay toog góor ci kanam bu góor geesu bu geesoo gis jigéen bañ nañ ko ba ni julli may nañ la su fekkee ne ay jigéen nga nekkal jigéen toogee ni walla nii xam nga dañ laa may ne la assalaamu aleykum yi la charia am na ñu naan charia ne da nga ne asalaamaaleykum mel ni kuy dàqi picc ay moo yow kañ la la picc topp kenn du wax loolu asalaamu aleykum sa gémmiñ gi na tollu fii booy sëlma su dee ay jigéen a toog fii bu ko defaree asalaamu aleykum ndax moytu jigéen ñi am na nag jiit ñoo njiit yoo xam ne dañuy xool gel yi de maa la ko wax moo ñoo dàq doxaan Ismaïla Yaasin di nekk ci diini di làmbatoo ko raasaatu ak joxante rendez-vous hmm? ci wërsëgu la yàlla dénk xaadimu rasul nee na nu la yàlla di joxe wërsëg nga war ko caa jàmm nga di ko ca moy sàkk wërsëg joxal nga war ko caa jàmm nga wut ci jigéen joo njaalool